léegi nag dañuy joxe parole bi salaamaaleykum mbokki degré ci weeru koor ngeen gàttandu ñu presque à 2 kilomètres di daw di topp caravane bi ba def rassemblement bu exceptionnel bi nga xamante ne Kolda rek la amagum ñun amuñu temps Sénégal def ñoo yónni te yàkkamti ñu amuñu temps defaat 15 jours de campagne naan dañuy dem deuxième tour xëccoowuñu loolu premier tour lañ ko bëgg a jeexal te premier tour dafa war a jeex boo xoolee statistique u ANSD Kolda 54,8 pour cent de la population de la région sont considérés comme ay nit ñu ndóol yu pauvre lan moo ko waral loolu fayitu système la fayitu état la ndax potentiel baa ngi fii région bi nga xamante ne boo xoolee superficie bi mat na 13 771 kilomètres carrés te la superficie bi nga xamante ne nit ñi dëkk nañ ci ça ne fait que 101,4 kilomètres carrés kon li ci des yëpp lu muy laaj lu dul ñu ñu def fi ay usines def fa ay tool former ndaw ñi ñu liggéey ma delluwaat di wax artisan yi ne kon man je m'engage à des certifications d'apprentissage am na ñoo xamante ne jaaruñu ci école moderne pour mën lu ñu mën ci oto mais dafa laaj ñu valoriser compétence yu ba pare nag accompagner leen à travers un fonds de soutien de l'artisanat et je m'engage dès la première année de mon mandat à en faire un fonds de 5 milliards kon mbokki Kolda xam leen ne la voie d'un senegal souverain fuy yoon di dox fu ndool jeex senegal boobu mu ngi commencé le 24 mars 2024 ak ñi ñu àndal les leaders de la coalition Diomaye Président